diagnostiqué rek la ñuy def euh, lii nga xamante ni moom mooy suñum réew euh, du tey moo njëkk ñuy bind ay lettres du tey mooy mucc ndaxte bu fekkee ne dañoo nekk ci réew boo xamante ni euh, baykat bi nga xamante ni suufam rek la am nga ñëw wan ne ko yaa ko ëpp doole jaay ko doole foqarti suufam cest à ñi fi am lu néew muy seen sac muy li ñuy war a dundee bu ñu leen ko xañee amul leneen lu ñuy def lu ne leneen lu ñuy mel. ndaxte sama yére bi bu mu fekkee ne moom rek laay suturloo guddi gi ma fóot ko suba ma xëy boo ma ko dindee ba ma deseb kiloot boo ñëwee nga ne ma nag da may dindil kiloot dindi ko nga ko dindi de mais du ma ne la ëllëg du ma def leneen lu raw lañ ma def parce que loolu moom mooy li nga xamante ni mooy suuxat mer en yi nga xamante ni ñoo am ci askan yi dem nañ du ma ne dem nañ fépp ci biir Sénégal mais fu ëpp fu ñu dem ci biir Sénégal ay baadolo yoo xamante ni li néew liñ yor mooy seen dund moom mooy borom doole yi ak derrière l'État ñoom ñoo leen koy ote et que bu ñu leen ko otee rek amatuñ benn espoir de vivre dans ce pays et que sénégalais lañ nekkul ay comoriens nekkuñ ay guinéens ay sénégalais lañ et état du Sénégal moo ñu war a protéger ci biir lettre boobu dinañ xaatim yu bëri wane jafe-jafe yi nga xamante ni moom lay askan bi du dund et que ngi xool saytu ba xam suñu ministre bii nga xamante ni moom lañ dénk loolu dina ci àddu ndaxte nag. Euh, ministère bi nekkul lenn lu mooy benn feebar ci biir yaramu doomu aadama ndaxte ci bopp bi la boppam réew mi moo feebar donc benn yaram ci benn pàcc ci yaramu nit bi bu feebaree donc du dindi ko mooy tax mu mu saafarawu